sàmm njaboot gi gannaawam dëgëral ba ñu àggale mboolem doonu yéeneem waaye ñaan si Amadu Muntaxa mi fi nekk Sëriñ Tuubaa sunu Boroom bàyyil na ko fi mu yàgg fi lool te wér àggale naalam yépp ak yéeneem yépp waxtaan tey dafay doon dafay jokk rek ci waxtaan wi ñu tàmbali woon ci ajuma jële ca gannaaw mu jëmoon ci wàllu maandu di jikko ju am solo jotoon nañ cee indi tomb yaatu xamle ne maandu dafay làmb mboolem weti wet yi làmb ak jullit wetam yépp waaye itam nag safaan ba it safaanu maandu mooy tooñ ñi di ko moytu ndax sun bon da ko xaraamal ci boppam ak tooñ ñëw na ci xadis yéen bi saa sam wax ne sun borom ya sun borom nee na yaa di inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazalamu yéen samay jaam man yàlla dama xaraamal tooñ ci sama bopp def ko it muy lu xaram seen diggante kon bu leen tooñante te ki ñu tooñ ak ñaanam sun borom da koy nangu maanaam kii ñu tooñ bu ñaanee yàlla da koy nangu amul lenn du koy téye ni mu ñëw ci wax yonent bi saa sam wax ne ittaqi daawatal mazlum fa inoo laysa baynaha wa baynallaahi xijaab day leen moytu ñaanu ku ñu tooñ ndax diggam ak yàlla benn kiiraay doxu fa bu ñaan sunu borom daal di nangu ndax sunu borom wax ne waa izzati la ansurannaka walaw baada xiin génnaaj sama tedd nga dinaa la dimbale donte gannaaw ab diir lay doon moom mooy mooy ki ñu tooñ ki moo tax shaayir ba waxoon ne laa tazlimanna ita ma kunta muqtadiran fa zulmu tarjicu uqbaahu ila nadami tanaamu aynaaka walmadlumu muntabihun yadoo aleyka wa aynullahi lam mi nee na bul tooñ mukk soo ko mënee ndax tooñkat fa muy mujjeek borom ëllëg mooy rëccu rek neen man ngaa tooñ ba noppi te di nelaw ànd xel mu dal te fekk ka nga tooñ ma ma nga yow tàllal loxoom yàlla te bëtu bi yàlla moom du mas a nelaw mooy bu ñaaree sunu bopp dafay nangu maandu nag am ay xeet ndax nee naa léegi maandu dafay tàbbi ci mboolem wàlli dund gépp ci sa diggante sa wàllu njaboot wàllu social wàllu économie wàllu politik wàllu yépp mboolem yëngatu yi nit ki yëngatu wala doxinu bi dox eh, lépp dafay aaje woo maandu bokk na ci maandu yooyu nga xam nag xeeti maandu yi nga xam lislaam da ko da ko da ko digle yi muy bëgg a tudd ba njëkk mooy al adlu ma an nafs mooy teggin sa diggante ak sa bopp ni ki da fexe ba yaramam ndax yaram dafa am xàq nga maadu ci sa yaram mooy yaram xàq jam laaj nga di ko jox yaram dafa am àq ci di noppalu loo bari liggéey loo bari bari kërti kërti nga tànn waxtu wax nda nga ca ngi noppal saw yaram yaram dafa am àq ci lekk am ak ci naan kon nga fexe ba lam laaj ci wàllu noppalu bu wax noppalu jotee xàqam la ci ci maandu la bokk su waree lekk-lekk su waree naan naan waaye xañ ko yooya nag ngir neey da dangay da ngay da ngay da ngay dëdd wala yu lool lool tooñ tooñ sa yar tooñ sa jëmm la tooñ sa bopp la bokk na ci xàqi ruux nag waxtu nekk muy dolli ko imaan dolli ko gëm yàlla dolliku googu nag mi ngi ame ci di xalam sun borom xalam màggaayam xayu tedd ngaayam xalam itam e, kiimtaanu ay ay mbindeefanam ak di ko jaamu jaamu tey sellal jaamu ga mbokk li nga xam ne dafay dundal ruuxu ci ko ci ci muy dolliku ngëm waxtu nekk ci geneen an nag julli bu war a fexe ba tolloole diggante àqi bakkanam àq yàlla àq njaboot gi àqi doom yi maanaam bañ caa matal benn bàyyi ca des te feex ba am tawaasun ci diggante yooyu bul matal xàqi say soxna sàggan sa àqi doom wala matal sa àqi njaboot sàggane àq yàlla dangay feex ba yépp tolo bu ci nekk nga sàmm ko nanga ko war a sàmmi ndax euh, ba boo ca woyefal ñàkk ko sàmm rek loolu ak tooñ lay daal doon te salaason ne woon na inna li badinika alayka xaqa wa inna li aynika alayka xaqa wa inna li ahlika alayka xaqa wa inna li zawjika alayka xaqa na nga xam ne sa yaram am na ci yow xaq sa jëmm am na ci yow xaq say waa kër am nañ ci yow xaq muy say doom say soxna am nañ ci yow xaq nga fexe matal xaq yépp kon dafay war ci nit ki kon mu fexe ba maandu ci digganteem ak boppam awalan balaa gaaral boppam ci mbugalum yàlla subhanahu wa taala ci sàggane maandu googu diggante maan dëgg ak maandu ma ñàkk sàmmanteeg moom day mel yaa ngi exposé sa sa bopp ci kanam yàlla mbugalum yàlla subhanahu wa ndax su ko defee rek mooy tooñ boppam lay doon wa ma yata wa da xudóot la faqad zalama nafsa suñu boo ne képp ku jéggi li yàlla rëdd ne bu leen ko yor rek boo magee toj boppam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 أكبر ba ko ñaareel mooy maandu sa digg ak say sa digg say doom warugar la ci waajur yi ñuy maandu ci seen jëflante ak seeni doom mooy du jaadu ñu di leen gënale gënale say doom amoo sañ-sañu may sa doom loo mayul doom ya ca des wala nga jël sa jenn doom wala sa ay doom teg ko ci kaw ña ca des wala ngay jagleel ak fonkeel kii goo jagleelu ña ca des ndax lool la muy jëmbat la muy indi mooy dafay jëmbat jiwu soxar ak cibeel ci xoli biir doom yooyu ba la muy jur nag mooy noonoo aku meru seen diggante mayees na ko jàng ci xisatu nabillahi yusuf alayhi salaam diggante am ay doomi baayam yente yàlla yente yàlla yusuf li taxoon ay doomi baayam ëmbal ko lañ ko ëmbal seen xol ba tax ñu di ko sàkkal pexe mooy gisuñu ne seen baykat moom la gën a fonk ci ñoom moom la gën a bëgg ci ñoom moom la gën a teg yootam ci ñoom moom la gën a moom la gën a yooya tax nag ñu ëmbal ko lañ ko ëmbal ba tax ñu di ko sàkkal pexe ba yóbbu ko sànge ko loolu na saa su amee rek di loolu mooy mooy dikkaat saa boo gënalee say doom jagleel ki loo jéglu koy wala fonk kenn noo fonk koy wala may ki lu mayul ko ca des wala may ki lu ëpp la nga may ñi ca des loolu loolu sañee su ko ñàkk a maandule la te njaboot nag xéewalug yàlla la gu yaayoo cant kon du wér nag di weddi xéewal googu ci di ko mooy yàlla subhanahu wa taala ak ak ñàkk a seen diggante te nag dafay matale ci xeeti jëflante ba nangay jëflante ak ñoom ak na ngay dépensale ci ñooñ ñoom ba ci na nga leen di jàngale mën a yóbbu ci kii ci daara ju baax ju mën a jàngale yóbbu ci daar daar yu bokkut moom lool lool lool lool sañu su ko wala jàngal kii njàng mu gën a baax ma nga jàngal kee wala sonn ci njàngum kii sàgg na njàngum kee ak fànn yëpp rek fànn gu ma doon dañ cee bëgg nga nga yemale leen ca imaam muslim solo na ci sanadam ne sanad boo xam ne no nomaanu nu Bachir moo ko nettali yal ko yàlla gërëm mu ne sama baay dafa am lu ma sa yëkkati ci alalam jagleel ma ko ne ma lii yow laa ko may su ma dundeek su ma dundut sama fekkeek sama fàddu yëpp yow laa ko jagleel ne sama yaay di amratu bintu rawaxata ne ko man dey su ma sañoon lii nga wutal ko seere mooy nga dem ci yonent bi saa sam yégal ko ko mu seere mu ngir mu seere ko ngir ëllëg ne sama baay daal di wuti ci yonent ba damay wax ko ko mu ne ko ndax defal nga ko sa yeneen doom yi ci des ah mu ne ko ah, déedéet mu ne ko ittaqullaha wa'dilu bayna awlaadikum tege na ragal yàlla tamaan ji seen diggante seeni doom neen sama baay daal di si daal di firi loola la muy tekk rek mooy kon sañoo kon génneel say doom ba jël lenn jagleel ko sa doom joo xam ne jagleeloo ko sa yeneen doom ja ca des ba ko ñetteel mooy maanu si diggante say soxna su borom dafa daganal limuk ay soxna ngir ay xikam yu bari donte limu googu lu ñu daganal la jubluwoon ca nag mu nekk loo xam danga koy danga koy jàppe nag limu goo xam danga koy def ay yoonu tooñ tooñ sa soxna wala wàññi ay xàqam mbaa yu demee ne moom wala juble ca toppandoo rek mbaa yu ko niru wasmo dafa dafa digle rafetal aw jëflentiin ak ñoom rafetal saw jëflentiin ak say soxna wa ashiruhunna bil ma'rufi na ngeen àndeek ñoom ci njëkk mooy di leen yërëm di leen suturaal di leen jég di leen jéggal tey jëlale bàyyi ñàkk rafetuk jëflante googu nag ak tooñ la ni ko noonu day mel ni maanu googu nag ñu la digal ci ñoom mooy lépp loo moom la nga maandu ca niki li moom fan sun bo nee na fankihu ma taaba lakum mina nisaa mathna wa thulatha wa rubaa fa in xiftum allaa ta'dilu fa waahida na denc lu tey ci yéen ci jigéen ñi ñaar ba ñett ba ñeent su fekkee ragal ngeen nag waxut bu ngeen xamee da bu leen wóoree am na ñoo xam ne wóor na leen duñ mën a maandu waaye daf su ngeen ragalee rek ne du ngeen mën a maandu na ngeen yem ci benn jàngook xol nag lor newu ca ndax xol nit moomu ko xol yàllaa koy kondiir di ko jëme fi ko soob kon gën caa bëgg kenn lool mbirum xol la eh, na meelu sun borom la mënoo ca dara waaye nag la nga moom nag bul ko ca feeñal sa wàllu jëflantin yaa ko moom kon bu ko feeñal ci jëflantin bu ko feeñal ci ci ci ci waxin sun boo nee na wala tastati'u an ta'dilu bayna nisaa walaw harsun falaa tamilu kullal mayli fatadaruha kal mu'allaqa wo xam ne na xam maa gën a xam du ngeen mën a maandu du ngeen mën a maandu googu nag wàllu xol moo tax mu wàllu xol mooy faaw nga am koo gën a bëgg lu ngeen xër xër xër du ngeen ko man waaye nag boo leen jàng yëpp gépp jàng jigéen gi jëpp jàng na mooy feeñal ko ci jëf sa jëf leen moom nga xam ne day mel ni ñaara nga fa waaye kenn nga yor te day am dana am ku denc ñenn te yor kenn waaye way leen wa in tuslixu wa tattaqu fi an laa kaana xabarun rahima waaye su ngeen defee la ngeen man lépp na nga xam ne la ngeen la ngeen di am jàng ci xol lépp fexe ngeen ba rafetal ci wàllu jëflanteen mooy mooy rafetal gi mooy yéwénal gi mooy ragal yàlla gi neen suñu ba leen jéggal nag la ca des lépp la ngeen mënut su fekkee nit ki nag dafa jàng ci kenn ci ay soxnaam nga xam ne jël lépp jox ko rek jël lépp jox ko xañ ka ca des lépp loolu ak tooñ la yàlla da ko xaraamal dafa jaadu mu yemale seen di mu yemal leen maa ngi seen diggante ci al umuru maddi yépp rek Eh, yoon saa mi ngi mi ngi mi ngi mi bu baax a baax a baax ñàkk a ci sa digg sa digg sa digg say soxna ma ngi cay ma ngi cay koy moytandiku di wax ne man kaan lahu imraataani fa maala ila ihdahuma jaa yawmal xiyaamati wa shiqquhu maa'il su ko defee nag kon eh, ñëw nag eh, ci xutba bi nga xam ne moom la imaam war def ci kanam tuuti incha allah euh, xutba bu njëkk bi euh, dafa gannaaw bu mu sante yàlla xam na xam ne àdduna kat ak li fi nekk lépp ay jeneel rek waaye itam mel ni njënuux njënuux sooy dox ci ab tali digg digg digg digg bëccëg aw tàngoor dangay séen lu mel ni am ndox luy leer leer mel ni am ndox te daloo may saraab li ci kaw suuf léppit suuf la te mel nag ay nit a ngi fi yoo xam ne dafa dafa mel dañoo màndal seeni xol ak bëgg àdduna ñu soxla woo leneen lu dul yóbbal bu ñu yóbbu la alaaxira sëgg ci bàndeex yeeg yaa amul amul njariñ wa waxtu nekk na nuur ci di ko sàkku ak di ko dajale ci ba bëccëg am nit ñoo xam ne seen xol dafa fees dell ak i maarif ay xam-xam ak i mbóot ñu ubbi leen defal leen basira ñuy ñuy xam lu bari di gis lu bari ñu dégg waxe suñu borom ji wax ne inna maa hayat dunya mataaun wa in laaxira la hiya daru hiya daarul xaraar àdduna kat dund la goo ne li fi nekk lépp matériel képp la waaye àdduna alaxir na mooy kër gay sax ba faw tax seeni yitte yépp nag ñu jëmale ko ci saxal di jéggalu yàlla ak di ko sàbbal subhanahu wa ak di ko sant ci ngoon guddeeg ba ci gi taqoog ndéegi yàlla yi ci suufam ngir wax ji mu waxoon ci xadis xursi ne inna buyuutu fi ardi almasajidu wa inna zuwaari fiha ummaaruha fa tuuba abdin tatahara fi baytihi summa zaar summa fi bayti fa xaqun ala al mazuri an yukrima zaira nee na suñu ba dafa ci xadis xusi samay samay néeg ci kaw suuf di mooy mooy jàkk yi ñi ma fay siyaare si nag mooy ñi koy dundal mu ne kon texe ñeel na jaam xam dafa dafa laab mooy sangu na war a sangoo ci biir këram ñëw siyaare ma ci jàkk ci sama sama néeg yooyu nee na waru gar la nag ci képp ko ñu siyaare mu teral ñi ko siyaare maanaam ko am gan nga teer gan nga te ñamay ñëw ci jàkk jan ñooy samay gan lañu xutba ñaar bi gannaaw bu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne gannaaw la yéen nit ñi na xam li ñuy njëkk a seet ci jaam bi ëllëg yawmal xiyaamati mooy julli bala seet jëfam yan jël la njëkk a ba noppi su julli yéwénee mboolem jëfam yépp yéwén su julli yéwénut nag mboolem jëfam yépp yàqu kon mooy ndey mboolem topp yàlla yépp waaye mooy sangum mboolem xurubaat yëpp mboolem jaamu yàlla yëpp te deful nangu nag genn jàmm yàlla lu may gannaaw bu ñu nangoo julli ba noppi te duñ xool ci jaam bi genn farata wala genn naafila gannaaw gan gan loolu gannaaw bu matee ba noppi maanaam faratay julli mat ba noppi naafilay julli mat ba noppi kon na nga màggal na ko màggal di jaamu yàlla gi nga xam ne ci la jaam bi di yàlla borom subhanahu wa taala kon na na nag rawati nag eh, jaam yàlla goo xam dafay dafay kafaara mbooleem li doxoon sa diggante li diggante ay mbokkam ci ay man maanaam diggante julli ajuma ak julli ajuma bu deesiwaat wala julli farata ak diggante fa julli gu nekk digg la fa nekk ci diggante ci ay bakkaar yu ndaw suñu doon da ko da da ko da koy da koy da koy da koy far mu ne kon na ko taxawal mu ne yàlla na leen yàlla dimbale ci na koy taxawal ci ay jamono ca waxtoom ya ràññ ko ak waxtu jamono ya ak waxtu ya te ngeen matal nag xàqam ci diggante yamo gaag dal gaag te ngeen uh, wéeral itam pas-pas ba ci sellal ak ragal yàlla aku dal yàlla su ma defal tawfiq defal leen ko teg nu ci yoon wu jub wa te ilham nu itam uh, lu baax lépp ci ma ci mën a mën a settantal li nu war ci alquran ñu di ko jàng te di ko settantal na mu ware te yàlla jégal nu te jégal leen yàlla sunu boom bool dimbale wala defal tawfiq xiir nu ci njub te saaxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasul على الفلاح

الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه من سيء ذنوبنا ونشهد أنه الله الواحد في ذاته المنزه في أسمائه وصفاته ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم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 ala al iqbaali ala al axirati wal ihraadi an dunya wa taamuruna bi an najtaniba nawaahihi wa namtasila awaamirahu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 فلياخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وهدانا وإياكم الصراط المستقيم alhamdulillah laa ilaha illa huwa laa nastaciinu illa bihi wala nacbudu illa iyaahu jalla allahu mawlaana ixtaara nabiyana muhammadan wastafaa ووفاه من خوض اختصاصه ما وفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من تلا وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا أيها الناس إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فهي أم الطاعات وسيد القربات لا تقبل قربة إلا بعد قبولها ولا ينظر للعبد في فريضة ولا نافلة إلا بعد تمامها بحصولها وأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها أزمانها المعينة وأوقاتها ووفوها حقها من الاعتدال والطمأنينة وصححوا عقدها بالإخلاص والخشوع والسكينة وفقنا الله وإياكم للطريقة المثلى وألهمنا جميعا لتدبر ما علينا من القرآن يتلى وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 zaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu zul fadlil aziim masalul laziina hummilu tawraata summa lam yahmiluuhaa kamasalil hamaari yahmilu asfaaraa bi'sa masalul qawmi laziina kazzabuu bi aayaatillaahi wallaahu laa yahdil qawma zaalimiin qul yaa ayyuhal laziina haaduu in za'amtum annakum awliyaa'u lillaahi min duuni nnaasi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 allahu akbar sami allahu liman hamid rabbana lakal allahu akbar allah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 wa zarabiyu mabsuusa afalaa yanzuruuna ilaa l-ibili kayfa xuliqat wa ilaa s-samaa'i kayfa rufi'at wa ilaa l-jibaali kayfa nusibat wa ilaa l-ardi kayfa sutihat fazakkir innamaa anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir illaa man tawallaa wa kafar fa yu'azzibuhu llaahu l-'azaab akbar inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna xisaabahum allahu akbar allahu akbar sami allah rabbana Allahu asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.